Ansoumana Dione nuy nañ la euh, Sen TV mo le moo pour waxtan ak yow xew-xew yi nga xamanté jot na xew fi suñu biir réew mi jotoon nañ la dalal euh, nga jotoon si wax sa xalaat diganté euh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr par la suite ëmët yi am mu am 13 morts ban jangat nga koy jox. ma lay fay donc monsieur Wagé di am mbégte di la dalalat fi yéen wa Sen TV info li xew ci réew mi. Euh, dafa wane ab matadi ci suñu ay kilifa yi yor réew mi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoom ñooy laaj réew mi seen matadi ndaxte euh, buñ la dénkee réew da nga waatoon ci constitution ne euh, di nga fexe ba nit ñi nekk ci jàmm ba nit ñi nga yoral leen seen alal yoral leen seen sécurité kon bu demee ba fukki nit ak ñett ñàkk ci seen bakkan jàpp naa ne la ma doon wax tout le rek mooy sénégalais yi ñitewuñu kilifa yi matuñu kilifa président Macky Sall la ñu dénk suñu réew bu ab mbir xewee si ñenn si njabootam ndaxte Ousmane Sonko ak Adji Sarr ay njabootam lañu mu ne bu ci kenn wax loolu dafay wane ne moom génn na leen si réew mi bokkuñu si réew mi loolu nag moo waral lii yëpp ndaxte kilifa war nga mën a am promptitude jël ay décision yoo xam ni li ñu wax gouverner c'est prévoir bu fekkee ne mbir ñëw na président waroon am matuwaay bo xamante ne dina joxe ndigal pour que mbir mi ñu saafara ko te casse kaas du toj waaye ki nga xamante ne moom lañ né mom moy principal opposant wu président Macky Sall muy nak un vrai perdant dina si ñëw ci kam tuuti. pourquoi muy un vrai perdant. dina si ñëw léegi. Ousmane Sonko est un véritable perdant te nit ñi xamuñu euh, opposant au Macky Sall Woko, yoon Warren, ko jàpp naa ne waroon na wone cofeel ci askan bi waxoon na bo bo euh, taxaw kilifa ne dinaa wuy ji yoon te kenn du loru waaye moom lorangé nek nekk dégg na ko mu wax mortal mortal combat man baat boobu sax mënuma ko prononcer mortal combat manam mbir mi ay ay bakkan la ci soxla tek kaay ngeen tek sen bakkan. mortal combat ya ko dégg Ousmane Sonko diko wax ci gemminam loolu la Ousmane Sonko wax ba mu conférence de presse mortal combat mbir mi dafa laaj taxaw dafa laaj résistance waaw ana la ma fi résister kan moo ñu song. kenn moo song Sénégal kenn moo nekk en danger waaw xanaa ñoom gisuñu jafe-jafe askan wi xanaa gisuñu ay junni junni doomu aadama yu am feebaru xel yu nekk si mbedd mi moo ñu day Macky xañ leen seen aq ak seen yelleef xanaa loolu jaroon na résistance waaye dama jàpp ne réew xel moo koy yor xel moo koy laaj kon bu ñu demee ba fukki nit ak ñett gaañu si école pendant une semaine économie n'est pas nous nous saccagé d'essence les biens publics nous saccagé ay ay euh, euh, ay citoyens lambda les marchandises ñu sax que patriotisme man patriotisme je man en ce moment ma li ma gis dëggantaan li xew ci réew mi fan yi budul banditisme nañu ma wax lan la man banditisme laa gis si ñaari wàll yëpp nag si ñi laaj réew mi ak ñi yore réew mi parce que banditisme weesuwul mbirum viol kese leeragul sax am na wala amul nga wàccee police wàccee gendarmerie nga wàccee armée ana sa xel yow. buñ ne yaay njiitu réew dañu jàpp ne am nga xel mais président Macky Sall mënut a jëfandikoo xelam moo tax kilifa diine tey jii daanaka ñoo yër réew mi. gis naa ci ëttu taskati xibaar yi tey jii ñu bind na Touba prend le pouvoir maanaam Touba tey moo yiif réew mi loolu lan lay wone mooy que ne sunu kilifa diine yi ñi nga xam te ni ñoom la ñu njabootee.

Macky Sall en 2024 du nek candidat kon Ousmane Sonko kon kon mom kallay lay lolou loolu président Macky Sall buy dem kon yobale waale na Ousmane Sonko élection présidentielle bi ñu jëm kan mo wax rek opposant mo koy gagné opposition amu fa place fan lañu jëm moy élection bu ñëk ci histoire bu Sénégal moy don première élection bu Sénégal dana jafé dégg nak maanaam juróomeelu président bi mooy nekk président bu njëkk ci Sénégal maanaam ki nga xam ni askan bi dafay ñëw xool entre Wage entre ma samba ak ma Mademba ak Ansoumana ak diw ak diw ak diw kan lañ ciy tànn kan moo gën ci askan wi te man Ansoumana Dione man dama ciy bokk sama morom da ciy bokk bu boobaa nag ki nga xam ni moom Macky Sall la doon xeexal Macky Sall la doon bëreel Macky Sall la doon opposel kooku mom comme Macky Sall nekatu fa kon mom place am amatu fa njariñ motax mané président Macky Sall éliminé ba nopi ni nii rek éliminé de Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 ci kaw ne Ousmane Sonko mom moy le principal opposition mom moy le principal opposant du régime de Macky Sall gis nga en politique nañu bayyi di topp suñu ay analyste politique ñu ci bari duñ ay analyste ay opposant lañu dañuy dañuy topp ci ay ginnaaw opposant pour que su ko ko faloo ñoom ñaar ñu ànd di séddoo alal réew mi fiñ ñu toll tey jii élection yi ñu jëm nii askan bu Sénégal pour la première fois mu war a ubbi bëtam mu war a exigeant mu war a xool ku jub ku am yërmande mu war a xool koo xam te ni réew mi moo ko ñor mu war a xool koo xam te ni am na am na am na mat maanaam nekkul nekkul xale tey ji pouvoir comme opposition yëpp man jàpp naa ne ay xale yu ndaw la ñu bu ñu toggee ba seeni ay wéyjur ba seen ay sëriñ di leen jox ay ndigal waaw boobu réew fan la ñu jëm réew dañ koy dénk ku mat koo xam ne ni lu ne

Euh, xale yi toogoon fan yëpp moom su wootewutoon moom su jógoon wuy ji tranquillement lii yëpp doon am. non moom jóg na dem wuy ji mais dañ ko buggoon teg ay conditions fii nga war a jaar. bu doon man la Ansoumana joon parce que man yoon yàgg na ma woo man yoon su ma wooyee 9h 8h fa la may fekk Ousmane Sonko 8h war na ko fekk tribunal gis nga keroog ba ko juge bi déglu 10h. ban heure la ko heures du matin Ousmane Sonko na la 6 heures du matin wala 5 heures du matin fekkon ko tribunal way dafa baye ba neuf heures moy 10 japp moy yene dem wuy pour wuy dama ne man la wax man en Dione wax heures fa la may fekk Cheikh Bamba gouverneur daf ko woon ba muy dem ci yoon bi ñu bari jëm ni ko gàllankoor waaye dafa wuy ji yonent bi yoon wu ci ci jamonoom yoon woo na ko mu wuy ji Cheikh Ahmadou Bamba dañ ko déporté ba Gabon mu nangu lu ne mu teg ko fa mu ñib si ànd ndam boo nekkee kilifa boo nekkee leader da ngay nangu coono da ngay nangu natt euh, Seydina Mohamed ñaata at la woote Makka yàlla da ko gàddaay dem Médine mu gàddaay dem Médine ba am doole mu ñëwaat Makka ba jéggaloo Makka yëpp Ousmane Sonko laa wax parewutoon laa wax pour wuy ji su parewoon pour wuy ji huit heures fa la koy fekk. Euh, looy reproché président Macky Sall tamit. président Macky Sall nag luy njig rek moom mooy njàkk ndaxte ñun suñ réew moom lañ ko dénk dénkuñu ko. Ousmane Sonko moom moo waroon a fexe ba benn bakkan du tuur benn bakkan du des benn yàq-yàqu di am waaye moom nag euh, la may wax la ñàkk mën a yoram président Macky Sall lii dafay wane ne matul kilifa suba baat ci kaw matul jarul dénk réew ba waaye nag lent naa ko leeral. li nga wax dafa garaaw de. moom lay bëgg ñëw nii président Macky Sall laa wax. bu waruñu ko woon dénk réew mi te gis nga ñeent ñii ñoo tooñ Sénégal ñeent ñii. kan ak ñi ñeent nit ñi. Mhm. Madické Niang maître Madické Niang. Mhm. Issa Sall. Idrissa Idrissa Seck. Mhm. Sonko. ñeent ñii ñoo tooñ askan bu Sénégal en deux mille dix neuf Macky Ousmane Sonko wax na ko bu bàkk dem neena na Macky dafa sàcc élection yi et pourtant moom Ousmane Sonko. ak ak ñet ñima limni ñom ñoo dimbale président Macky Sall mu sacc élection yi daf ko sacc sacc yu leer nañ président Macky Sall gis nga parrainage bi ñu ñu won war ton nek man Ansoumana de parrainage dew voter élection 2019 kep ku jógoon sa Tank. dem voté ji 2019 Macky Sall nga doon sàndil carte ndaxte Macky Sall président Macky Sall

ci deuxième tour dans ci campagne électorale maanaam Macky Sall il gagne au premier tour parce que mon rek moo nekkoon candidat seul Macky Sall était candidat parce que mon rek la candidature valable de par la constitution du Sénégal ñeneen ñëpp amuñ amuñ coon amuñ coon droit moo tax mu gagné kon tey jii ñii la jàpp ne ñoom ñoo fexe ba parce que Macky Sall man sama baat ci kaw que ah. lu ma wax l'air. wax dafay leer Macky Sall bu juboon bu doon ku jub ku

si yoon bu doon beneen réew la bu doon koo xamante ni fonk nga sa askan laa wax bu doon ko xam ni bëgg nga sa askan bu dee koo xam ni yërëm nga sa askan sa askan nga jiital mais pas sa intérêt président Macky Sall dafay def déclaration solennelle solanel mu ne démissionné naa ngir bëgg seen réew réew mi jaxasoo na wax dëgg yàlla day bëggoon naa leen yoral waaye mënuma ko set len kenen gis nga atum 2021 bi Macky Sall daf ci organiser une présidentielle anticipée pour la stabilité du pays parce que ba fi me wax ak yéen nii musiba bi nek ci réew ba tay ming fi buñ ñu ba kilifa yi ba kilifa yi wax buñ nek euh, Touba prend le pouvoir les religieux ont pris le pouvoir Il war voir tax nak Macky Sall organiser ay élections pour ñu dénk ko ñi nga xam tane ñom

ak i xayitam ak i mbokkam ak i mbokki soxnaam bu ñuy on gouverne avec ses amis lolu topalé weesuwul wul lolu manam ko xamul xamuloko nik lum mu bari bari bari xam-xam sa yoon ci mom président Macky Sall moy président 16 millions des sénégalais kep fépp comme fépp fépp foo xam ne foofu la compétent nekk gis nga bu amé bu Sénégal di football contre la France wala contre la euh, contre la Côte d'Ivoire fépp Sénégal te football dañ lay nga duñ ndax politicien la wala kii njaago la wala kii séeréer la bo wala soose la kon vous loolu la la compétence c'est à votre disposition vois le politique ci wàllu mbay ci la santé ci vois le gouvernement, ci doon mais ñii dañu jël rek vous ak vous la soxla mom lay président il faut que mu guen si mbirum Benno Bokk yakar gis nga Benno Bokk euh, groupe malfaiteur bi gën a ci groupe malfaiteur la bu a ci aduna pour man Bokk parce que tout bi rek do do wone na ko maanaam Sénégal ben picc la buy a pour ko ko ñu ñu koy lol doy na di. ci lañu nek ni Benno Bokk yakar bobu non Macky Sall na genn bopam ci ne mom du président Benno Bokk yakar c'est le président de la République du Sénégal il doit gouverner pour le peuple pour les Sénégalais na jël ñi nga xam ni ñu am xam-xam la wax tay ji waxoon nako il n'est entouré que de ses ennemis lol leer na parce que ñi ko wër ñep kenn ku nek la wax muy DG muy ministres yi quatre vingt dix pour cent yëpp laa wax seen xel mooy dajale xaalis pour wutu Macky Sall te xamuñu ne yàlla kii wutu Macky Sall yàlla tànn na ko démb démb laa wax tey doogu ñëw yàlla tànn na kii wutu Macky Sall démb réew alal joxewu ko bëri wax joxewu ko doole joxewu ko mën ngaa coup taa sax te du tax nga jot réew. lan mooy solution boo xamante lu mel ni bañ a amati. lu mel ni pour mu bañ am il faut que président djubal il faut que mu djubal alalu je mi mu un ba réew mi jot parce que gis nga ñu amé fièvre xel de ñu amé fièvre xel je té bu leen joxul Je def lu ëpp li gars gis ni té lu leer lay wax nak té té ko wax. ban message ngay wax Ousmane Sonko par rapport euh, appel bi mu woté wat gars nañu gën résistance pour mu bañ ko defati. xam nga Ousmane Sonko man homme ma conseil guma ko jox oo ma appel buma bu koy jox limay wax rek moy nañu tey xam sénégalais dañu yew kenn leen sénégalais dañu ñor sénégalais wuñ man bama ma Ousmane Sonko 2019 muna Sonko jotna Sonko jotna mané ki dafa yakamti ki xamul li xew yew rek seul mu motax mané après élection présidentielle 2019 mané légui lan lañ wax légui luddul Sonko wessuna man dama japp ne Sonko Sonko wessuna man ma wax man néewtu ma Sonko jotna parce que wessuna mom moom moo noon jot te kenn gisu ko léegi nag moom moo fi bëgg di occuper terrain bi te terrain bi xamul né nekkutul nekkutuñ ci jamonoy opposition ndax ndaxte Macky Sall du nek candidat en 2024 2024 élection de choix la rendez-vous la pour quelqu'un

Je président bi. Mhm. mokni ñi ñu jëmukaay homme politique askan bi sen jëm bop la ñone doyal homme politique gi té li xew homme politique il représente il demeure il reste un danger pour la stabilité du pays. ñong lay jaajëfal Ansoumana un homme TV point info la pour waxtaan ak situation yi nga di la dalal di wax askan Sénégal. nañu bàyyi xel Ansoumana Dione nag nañu bàyyi xel Ansoumana Dione dama leen koy wax fii en exclusivité dama leen koy leeralal suñ borom mooma waajalal boppam man Ansoumana Dione mooma waajalal boppam bam ma diggalee bam ma boolee bam ma dénkee ñi amee feebaru xel ndaxte réew dañuy tabax xel yi réew nit ñi dañu war a nitee bu ñu nit ñi jaawale dof yi ak xel mu nitee président Macky Sall dama koy répété bés bu paree man Ansoumana Dione la yàlla waajal pour ma wutu ko ci bopp réew mi. ah loolu moom exclusivité la de. kon yow yaay uutu président Macky Sall. boobu ba léegi maa ngi koy junj askan wi nanguwuñu ko dégg nag nanguwuñu ko dégg waaye dama ne. kon yow yaay nekk cinquième président. may répété Sénégal may répété laa wax damay répété.

mobilisation bi askan bi am mobilisation bi sëriñ si am buñ ko defoon si ñu amee feebaru xel yàgg naa ko wax Sénégal nekk na réew mu naat euh, monsieur Wagué avenir bu Sénégal yàlla mi ngi ko teg ci loxo ñii nekk ci mbedd mi di taxawaalu amee feebaru xel. loolu doy na waar di. déglul baax li may wax nii. ñi am feebarum xel avenir u Sénégal ñoo ko yor. Wagué yàgg naa ko wax. avenir bu Sénégal laa wax mi si loxo dof yi nekk ci mbedd mi di taxawaalu gis nga nitu yàlla yi El Hadj Malick Cheikh Bamba tey kër kër sëñ boo dem tey ji muy Touba muy Tivaouane foo dem laa wax di nga fekk ni ñu joxee cër ñu amee feebar xel. maanaam may may ma tuuti tant que dimbali wuñu laa wax ñu amee feebar xel. réew mi du nat tey jii buñu ah, nga si djublu wa kay gis nga man dama na président Macky Sall amul wërsëg amul chance amul chance ndaxte réew Macky Sall laa wax tey jii tey jii bu jugoon ne ma ñu amé xel li wax ni du sama wax de bo waxu yalla la néna tabax juma nga gënal. xoolal Macky Sall li mu def ci kër diine yëpp waaye dama jàpp ne ba tey jii defarul kër diine yi dara parce que dëkk boo dem muy Touba di Tivaouane ñu amee feebar xel ñu ngi fay taxawal te kenn dimbalawu leen. réew mi pour mu naat il ñu amee feebar xel ñu jox leen seen gëdd ci réew mi seen wàll ci réew mi sinon kenn du am jàmm. Ansoumana Dione ñoo ngi lay jaajëfal bu baax suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax topp bi ngeen ñuy topp dañu sees si woon Ansoumana Dione waxtaan ak moom situation réew mi di leen jox dig daje ba beneen yoon.